asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi rawatina ñuy suivre IM Télé International Média TV rawatina émission cercle des idées comme ni ñu leen ko waxee saa su ne dañ fiy dalal euh, leader yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci réew mi tey nag ñu daal di dalal fii Moustapha Mbengue Senghor mu nekk coordonnateur PRP bu dee Déthié Fall ah, mm-hmm. fii ci Kër Massar Sud monsieur le maire ñu ngi lay nuyu voilà merci beaucoup Gore. Je vous remercie nuyu bu baax di nuyu PRP mm-hmm. à travers le président Déthié Fall le coordinateur départemental Kermassar Massar mm-hmm. tous les militants du PRP Nous aussi au mouvement cadre nga ici à Kermassar. Nous mm-hmm. avons am les de fi jërëjëf dinañ ñëw ci mouvement Kandé ndax mouvement Kandé moom doon nañ ko dégg Kër Massar lu mhm. mhm. bëree bëree bëri ci mhm. taxawaay beeg social bi mais tamit ñu gis lëkkaloo bi nga xamante ni am nga ko ak président Euh, Déthié Fall tey nag ñu war a waxtaanee actualité réew mi euh, kenn du la ko wax muy problème mu insécurité bi nga xamante ni am na en tant yow nga nekk acteur boo xamante ni da ngay yëngatu ci développement beneen bi tamit ngay yëngatu ci social ak li nga xamante ni mooy politique soo gisee ndaw Sénégal di rayante mu mel ni insécurité ba tey bi nga xamante ni jàppoon nañu bu ñu changé gouvernement bu yees dina am taxawaay boo xamante ni dinañ ko am en tant nga nekk kuy dund ci réew mi. Mhm. si semaine bii ñu nekk dee nu mu ci bëree sa jàngat lan la ci. voilà d' abord damay masawu rek ñëpp famille yi nga xam ne mhm. euh, seen i mbokk ñoom ñoo faatu. Mhm. ndax rey yi bëri na trop. Euh, Sénégal actuellement ñu leen di masawu bu baax a baax a baax. surtout ñi ci dem ñu ci bëri ay ndaw lañ. te demee ndaw daa metti ndax nga nekk ndaw say waajur investir ci yow am yaakaar ci yow. nga nekk soutien de famille ñu xëy faat sa bakkan je pense que lu metti la. mais boy def analyse rek. man je mhm. pense que les responsabilités sont partagés. oui à chaque fois rek dañuy dañuy indexé ñi nga xamné ñoo ñuy jité mais dama naan ku ci nek am nga part de responsabilité. Mhm. mooy euh, les gouvernants et les gouvernés. parce que fa am loo xam moo ci jiitu moy problème d'éducation d'abord. Mhm. am ki ci nekk euh, ku yor sa kër. Euh, xalé say doom yi nga yor yaa leen njëkk a éduquer yar len surtout yar len ci diiné yar len ci comportement bu baax. yàlla ci aussi ci ay valeur ba pare état soog a ñëw nag teg li nga xam ne moom mooy les lois et les li nga xam ne képp jalgati yoon wala nga faat bakken wala nga def lu ko la naka su dul noonu te la mën a teg daan kon pour ñu gérer affaire insécurité bi je pense que ku ci nekk rek da nga jël sa matuwaay bu baax a baax mm-hmm. état état nañ gën a tegaat les règles gën ko endurcir aussi bu jaree sax ñu indi peine de mort parce que ñu bëri ñu ngi koy wax mhm, jamono yi bu ko jaree tamit ñu indi ko rek su mhm. fekkee c'est solution boo xam ne aussi mën na régler problème ñu def ko mais aussi tamit ñun ñi xam ne ñoo yor kër yi nañ ci dugal suñu loxo bu baax baax yar suñuy njaboot ci doylu yar leen aussi ci euh, kersa yar leen ci yiw mhm. voilà waaw mais suñu xoolee penc mi est-ce que nekkul tamit penc mi euh, ni mu mel parce que bu dee mbedd mi war na mën a am rôle ci wàllu yar Euh, mu mel ni daal amul benn organisation ak encadrement bi nga xamante ni ndaw ñi noonu la ñu war a mel boo demee ba ci biir sax da nga naan mag mag yi war a yar mag yooyu ñoo yare di ko est-ce que dina yomb tamit xale yi mën a doon ay exemple waaw mi noonu xam nga euh, suñu société moo feebar mhm. xam nga bala ngaa defar réew da ngay defar nit ñi ba pare mhm. je pense que fa lañ fa lañ war a tàmbalee xool jubal jubbanti bi ñuy wax ci jikko yi la war a jubbanti mhm. lu métti lay doon nag parce que dañoo euh, dañoo nekk société boo xam ne Euh, tënkuwuñ ci loolu léegi pour nga contraindre len ci loolu jub jubal jubanti mhm. je pense que lu metti lay doon mais mhm. aussi pour ñu mën ka réussir ñoom kese duñ ko mëna réussir mhm. il faut qu'il y ait une volonté populaire ñu xamné kat ñi liñ tek dañu ñoo leen ci wara accompagner yar suñu bop yar suñu njabot ba paré soga a génn ci mbéd mi parce que mbéd mi moom mooy moy bour waaw parce que euh, mbéd mi likoy réguler moy bour, moy administration locale moy mhm. aussi la sécurité moy police lepp li nga xamné rek ñom ñoy sécurité mhm. ñom ñoy réguler la rue mais aussi dafa wara commencer rek à chaque fois ni ma koy waxee ci biir kër yi ñu yar suñu bop ba paré ñun mag ñi mhm. yar suñu bop ba paré yar suñu njabot té amna na lay yaré do do mëna saga amna am lay yaré surtout diiné bu bu bu jito ci yow amna na ñoo ko mën dafa am ben seigne Tuubaa ben terem bu wa circul jawahiri dafa ne le meilleur d'entre nous c'est ceux qui ont les meilleurs caractères C'est ceux qui ont les meilleurs caractères c'est ceux qui ont la foi diina bu jiitoo ci nit rek yu ba nit day jomb yu bëri mhm. moo tax naa ñu pour suñu éducation ñu mën ko euh, réussir il faut ñu delluwaat tamit éducation religieuse mhm. yar leen ci diine ba pare soog génne def leen éducation muy éducation scolaire bu ko defee bu ñu boolee loolu rek ak règle ak roi yi nga xam ne état mu ngi koy teg mën nañ construire une nouvelle société kon li ngay wax nii dafa war a dem ci réforme mhm. éducative réforme éducative oui mooy ci biir école yi ci biir école yi mu mu bokk tamit euh, mhm. cër bi ñuy xaar ci moom. Mhm. au lieu que enseignement. Mhm. mais mu nekk loo xamante ni éducation bi day ñëw quoi. voilà commencé nañ ko sax. commencé nañ parce que boo xoolee enseignement à la base élémentaire dugal nañ léegi enseignement arabe. dinañ leen mën a euh, kiyal ay valeurs religieuses. mais aussi euh, yenn kii ñu jàng yenn matières yi ñuy jàng dañ ko war a gën a mën a dooleel. éducation morale vivre ensemble vivre dans son milieu. parce que nit da nga war a xam il sa comportement d'abord nan comportement pour dund ci milieu bi mhm. protéger environnement bi y yene vivre enfant vivre dans son milieu éducation morale mhm. c'est des matières importance la éducateur enseignant part de responsabilité mhm. buy jàngale yooyu mu bañ rek euh, nit ki mais éduquer matières yu ci la tolérance jàngal le respect Il yi nga des valeurs ñu jàngal ko nga il pourra bien se comporter dans la rue. mais dañu gis depuis 1960 ba fi ñu le yéen ngi réformer système éducatif bi. Mhm. mais dafa que ni man li ma jàngat. Mhm. jógeeguñu ci civilisation. Mhm. théorie parlée. mooy intégration comme nous l'avons ko c'est ni uh-huh. lu la. ci théorie mais intégration bi nga nous ni war nañ ci intégrer xale yi. ba mu ba mun a société bi lan problème bi. pour xale yi war ko jëfee surtout yéen da ngeen ne ngeen toll ci approche par les compétences par les contenus mhm. yéen comprendre mhm. Mhm. léegi lan moo tax yar boobu ak li ngeen ko waxee vivre dans son milieu ensemble mënul feeñ ci xale yi tey waaw ba ñu mën a mucc ci jéeye yi am léeg-léeg voilà xam nga dañoo war a réadapté waat le programme surtout am suñ programme dañu ko war a réadapté ba nga xam ne dafay dafay basé sur nos réalités socio-culturelles mais xam nga dañuy def copier coller ñun suñu lépp ba suñu institution suñu lépp dañoo copier France indi collé. ñuy jàngale aussi ce ne sont pas am na benn examen passé benn xale bu ñu interrogé mu ne ngeen ñoo waroon jàngal ay Serigne Touba ay Limamou Laye moo gën ngeen di jàngal ay je sais <laughs> pas <laughs> Mao <laughs> dëgg la boo part de vérité mhm. gis nga ñun on est Sénégal on a nos mhm. ay africains lañ dañoo am suñu réalité yoo xam ne dañ ko war a adapté ak mhm. suñu programme parce que suñu valeur socio culturelle yoo xam ne dañ ko doon suñu maam ay valeurs yu am solo la waaye ni ko olof di waxee rek saa yoo wàccee sa ànd rek ànd boo dem fekk fa borom mm-hmm. moo tax nag dafa baax bu ñu tëggaat bu baax a baax defaat programme bu baax boo xam ne dañ ko réadapté avec nos réalités socio-culturelles mu den loo xam ne duñ ko théoriser aussi seulement mm-hmm. mais dañ koy jël di ko di ko pratiquer loolu mooy yomb intégration bi moom mooy je pense que c'est mm-hmm. euh, ñu dem ci actualité politique bi li gën a fës fi mu toll nii président de la république dafa bëgg a tas d'ailleurs ça propose une hein, mhm. loi Bob, qui est au conseil des collectivités territoriales et mhm. environnementales. Mhm. en tant que yow nous la dit que dañu ne dañu bëgg nous yaxanal gafaga réew mi ndax loolu yow en tant que politique ça a lan la ci voilà il fallait s'y attendre parce que boo c'est une promesse électorale bokkoon na ci programme aussi bokkoon na ci waa parce que aussi yenn y yi qui créé c'est pour rek satisfaire clientélisme politique bi oui bu buñ né politique autrement yaakaar naa loolu la politique autrement c'est moy sama slogan man mhm. mais bo xol dañ koy mengalé ak ñom politique bi woté rek moy un mhm. projet bi ñu xol andi benen une politique bo xamné da fay andi la rupture mhm. ñu bàyyi clientélisme politique bi rationaliser aussi les dépenses de l'État je pense que c'est une très bonne idée ndax bu ñu tasee CCT tas CESE e, dinañ économiser je pense 15 milliards 15 milliards yu avez fait dem mën nañ ci def yeneen projet surtout que dañoo toll euh, réew moo xam ne àdduna bi sax moo metti mhm. te on a beaucoup de défis à relever mhm. je pense que yenn euh, dépenses yi nga xam ne c'est inutile c'est pour simplement satisfaire des alliés mën nañ ko mën a supprimer jël xaalis boobu nag def ko foo xam ne dina mën a jariñ askan wi mais institution yooyu lu mel ni ko euh, au conseil des collectivités territoriales nee na dañuy jax dañuy xalaatal président de la mhm. république ci wàllu localité yi mais loolu tamit bu ñu ko tasee fan le président tamit di jëlee te xalaat ak bo xolé ñom euh, ñoom seeni rôle. waaw mu ñaar institution yi. Mhm. parfois fay am sax télescopage ak yenn euh, ki bon yenn rôle yo xam dañ ko attribuer mhm. à des ministères wala à des directions. non mhm. sax administration locale parce que bo xolé HCCT dafa gën a xaw a euh, sax ak administration locale. locale je pense que mom soxlawul ku koy ñukoy koy ci lool yaa naa xalaat sax wess nañ ko on est dans l'action, on doit être dans l'action. action. dañ ko créer won rek il ne faut pas avoir peur de le dire Nous ko créé un rek pour satisfaire mhm. gars je pense que tas bi c'est une demande sociale Nous dañ leen ci encouragé euh, il faut aller jusqu'au bout C'est ce que nous attendons aussi de l'Assemblée nationale mooy ñu voter ko mhm. par patriotisme par patriotisme kon les Japonais naxasal la benn parti politique. du naxasal benn parti politique. am na est-ce que amul parti politique benn benn bokk yaakaar. est-ce que benn bokk yaakaar naxsaay nañ ba pare parce que ñoo ci ëpp ay membres. <laughs> non ñooñu naxsaay nañ ba pare est-ce que benn mi ngi existé mi ngi existé ba léegi. parce que yow kii boo xam ne dañ la battre nga nekk mouvance présidentielle ñu battre la au premier tour. Mhm. nga pare tas ñi jaar ni ñi jaar ne. instant bi ñu nekkoon APR cadre yu bëri bàyyi nañ ñii daw nañ ñi génn nañ réew mi ñi tal seen bopp lañ tal. je ne pense pas que ñooñu dañuy dañoo teg li pour naxasal leen ñoom je pense que APR moom ak Benno Bokk Yaakaar c'est déjà conjugué au passé. mais lii est-ce que du PS boo xamante ni président tegal na leen ko. non je ne pense pas je ne pense pas ñun ñu nekk ci siège ay PS ak euh, aussi defante parce que soxlawuñu ko. parce que PM war na mën a def déclaration politique générale. voilà est-ce que li tax li tax mënuñu woon njëkkee foofu ñu njëkk a dugal projet de loi. contradiction bi pour jéem jëm leen xool. lan mooy lan lan lan lan euh, lan quoi bitu voilà seulement contradiction la parce que DPG aussi il faut être honnête. ñu ko mhm. voilà bon lu sax ñun euh, président mhm. parce que tamit euh, loi ak règlement constitution moko ko assemblée au mois de septembre. mois bi mhm. yu jarul muy mais a ACCT té defagul DPG mëna jiixi jaaxa ci xelu askan wi. moo tax sànq ma ne la ay pexe politique la dañu bëggal wàññi doole Benno Bokk Yaakaar. est-ce que jar na ko jaru ko de. Mhm. jaru ko je pense que su fekkee dañoo bëgg a tas assemblée nationale. Mhm. nañ ci dem droit au but ñu tas ko parce que tamit soxla nañ benn assemblée bu de qualité aussi. Mhm. parce que li assemblée moom li ñu gis quatorzième législature xaw naa doy daal moo tax soxla nañ tas assemblée bi. créer une assemblée nationale am de vrais représentants du peuple. bu ko defee nag ñoom un projet de loi une ñu bëgg a jàllale ñu jàllale ko assemblée ñu leen pour ñu mën a dem ci réforme. kon yow da nga bëgg ñu am majorité l'Assemblée nationale. bon pourquoi pas mais en ce moment, man suis am majorité à l'Assemblée nationale. yow waa PRP <laughs> le PRP Lors dinañ dinañ ci dinañ ci ñëw après. mais ñun li ñu jaaxal mooy si suñu tasee assemblée nationale le 15 euh, septembre normalement. le mhm. président Maynoko, may na dit mu mhm. daal di koy euh, tasse. Mhm. mais buñ ko tasee. tasse, euh, état bi tamit amaat fa majorité. Mhm. est-ce que duñu amaat assemblée nationale politique comme bii ni fi voilà ça ça dépend euh, du choix des députés. Mhm. nañ choisir député yoo xam ne du seen parti politique lañ fay lañ fay représenté. Mhm. nañ choisir de vrais députés député yoo xam ne askan wi lañ fiy teewal. loolu c'est très important moo tax ñoom bu ñuy nous seen i liste. dañ xool gox bu nekk. ñi nga c'est de vrais représentants xam nañ le rôle du député. ñu tànn leen defal ay liste yu des personnes de qualité aussi nous xam ay borom xam-xam nous dañoo war a médiocrité Si ne pas réew mi folklore médiocrité mhm. faaw ñu mhm. commencer ci une institution ñu mhm. des personnes de qualité Moi, à chaque fois je lance un cri de cœur Mo bu de l'Assemblée, assemblée parti bu mu doon d'abord ne ñi fay nous mhm. fa parti politique mais dañ fa askan mhm. problème yi askan di jël est-ce que organisation bi parti politique yeen wara xolaat démocratie bi am parti mhm. président département liste nationale moy xol ay nitam neex mu leen ci voilà je pense que le changement mi ngi am parce que comité scientifique wala à la tête du parti di waxtaan di échanger di xol tamit ñu nek à la base. nga xamné maté nañ ko. ñu mën leen tànn en tout cas suñu parti mom mi ci am changement bu baaxa baax. nak wa pas PRP. ndax ñun valeur lañu gëna xol ci nit. Mhm. Euh, que bon la massification et tout. waaw parce que loolu moom buñ ko réglé wul. Mhm. mooy li fi amoon rek mooy. am au lieu que nga am député du peuple. Mhm. mais député député parti ngay am coalition. voilà te li ma déggee sa xalaat mooy euh, gouvernement bi am fa majorité amul problème. mais na fekk. Les <laughs> lu ñuy voté na logique pour mm. askan bi quoi. voilà comme pencum ndawum réew mi la pencum ndaw réew mi la nga ñi fi tok mm-hmm. amuñu droit war askan wi. parce que sacrifice xeeb fu jaar. c'est le peuple qui s'est sacrifié. Mm-hmm. dañoo proposé projet peuple bi peuple bi adopté projet bi financer projet mhm. c'est la première fois c'est la première fois. un euh, opposant mhm. génn kaso dugg gagné premier tour. dara. c'est ça c'est un message politique assumé. quoi. ils pas le droit ils n'ont pas ce droit. Mhm.

bëriwuñ li ñu leen daan gis comme politique bi fi amoon dañoo jàpp ni ñi am nañ valeur quoi. am nañ valeur parce que dañ ko incarné. dañ ko incarné tamit discours la ko jaay. Mhm. Euh, population bi yaakaar ci ñoom sincérité. ba mhm. épouser ko. Mhm. te moo tax am nañ yaakaar daal te ni tàmbalee nii. am nañ yaakaar ne duñu war askan wi. voilà surtout tamit dafay dépendre aussi seen relation ñoom ñaar. mu nekk euh, relation bu sincère bu dëgër. Euh, askan wi daal dina dina ci gis boppam bu baax a baax am nañ ci yaakaar. ñu ngi doon wax 100 jours mais fi ñu toll ni ñu ngi ci 4 mois. Mhm. en tant que yow sa jàngat mun nañu wax sax kenn mënu ci def bilan. Mhm. dañ ciy diagnostiquer buñ doon diagnostiquer lan nga ci gën a mën a jàpp. ci 4 mois yi ñu nekk. c'est très tôt. Mhm. yaakaar at sax teel na pour pour juger leen. parce que réew mi dafa am ñoom fu ko jëlee. oui yàqu-yàqu yi dafa société la ne wax recommencer waat à zéro parce que ñi fi a jaar seen réalisation. ñu ci ay infrastructure rek la.

Ah, su fekkee bu ñu nga ñu bëri ñuy je pense que c'est des problèmes seen <laughs> seen ki combat personnel lañ <laughs> voilà ñoom am na ñoo xam ne ils cherchent à exister dans le nos politique uh-huh. parce que seen légitimité la ñuy ut uh-huh. mais je pense que askan wi dëgg dëgg dëgg je me pose la question est-ce que tax na ñuy xeex aussi uh-huh. voilà euh, beneen bi si topp lu bëree bëri tey nguuru président Macky Sall doon que ni am na ay bilan yoo xamante ni def na ko lu am am solo ci wàllu réalisation bilan matériel mais côté justice sénégalais yu bëree bëri rawatina dañuy wax sax les patriotes muy waa Pastef ak ñenn ñi nga xamante ni daan nañ taxaw di ñaawlu yu ci bëree bëri dañoo nekkoon victime mhm. ñoo xam ne seen i liggéey ci lay ci la ñàkk ñi nga xamante ni tamit tuumaal nañ leen ci mhm. ak aussi yenn institution yi ñu jàppoon ni dañoo waroon neutre ñu bokk ci complot mhm. loolu tamit lan ngeen ciy xaar yéen ñi nga xamante ne ay acteurs politiques yéen waaw voilà xam nga boo xoolee le président Macky Sall damay wax à chaque fois que ne un bilan ne peut qu'être mitigé oui lu baax dina am lu bon côté infrastructure def na ci ay jéego góorgóorlu ci bu baax a baax mais lim gën a piétiner mooy

ci mouvement Kande. 4D waaw 4D 4D waaw mu ngoog 4D. <laughs> mouvement 4 ak PRP. Euh, mhm. ñu gis la nga doon évoluer. Mhm. Benno Bokk Yaakaar. Mhm. lan moo tax. nga jóge Benno wala da nga xamoon ni nguur gi day daanu. <laughs> nga bokk ci politiciens yi nga xamante ni. luñu lek rek lañuy wër. bon xam nga bon ñu bay la ñuy umpale mooy. man mon engagement. dans le Benno Bokk Yaakaar ça n'a jamais été avec le président Macky Sall. je suis hmm. pas un militant je n'ai jamais été un militant de la oui voilà c'était juste pour soutenir un frère. Hmm. ñu bëri loolu la frère kan. Euh, Matar c'est mon frère. Matar Mbengue c'est sa frère oui hmm. c'était le chef de cabinet du maire. c'était aussi le candidat. n'est coordinateur Kermassar Massar Sud. n'est coordinateur Kër Massar Sud. bon nous désigné ko pour mu dem élection il m'a appelé, m'a entendu la ma entendu mhm. mhm. son directeur de campagne d'ailleurs. Mhm. mais mon engagement musul le mouvement KD le mouvement citoyen citoyen la créé en 2019. le 4 avril 2019. 2019 ci créé des activités citoyennes. parce que nous, nañu jamono gox avons

coalition Benno Bokk Yakar, delluwaat suñu mouvement ba fait un engagement politique avec le président Déthié hmm. je peux dire que mon premier parti politique c'est le PRP. PRP voilà. waa léegi ce mouvement amoon na taxawaay boobu. Hmm. te yow euh, gëmoo woon idéologie politique bu Benno Bokk lan moo tax élection locale yi ñu génn dëggaloo leen seen bopp. voilà question mbokk moo taxaw. waaw moom <laughs> ah, day xaw a doy waar. <laughs> ton propre frère nga ngeen bokk benn kër moom. ngeen di jàkkaarloo. il faut am ku dellu ginnaaw comme que ñooy rakk ñu dellu ginnaaw jàppale ko yaakaar naa suñu yéene ci moom mat la. Uh-huh. nuñ mënoon ci moom def nañ ko. Uh-huh. jàppale nañ ko. ba fam yam li gars yi naan def lu baax bu jotee def ko fom yam nga xam ne fa la mën a yam waaw jàppale nañ ko en tant que frère ko seeti leneen dem taxaw élection présidentielle mhm. moom mu nekk Benno Bokk Yaakaar ak cër bu mu fa am yëpp mhm. bàyyi ko mhm. yow nga mën a jël librement dem PRP tamit xanaa war ngaa mënoon taxaw élection locale demal sa bopp voilà am nañ base politique c'est local ak euh, présidentielle bokkul. Mhm. am local mom nawetaan la. nawetaan la waaw dem soutenir ko xam sax. Mhm. bokk parti politique. Mhm. voilà c'est la localité. té mom aussi il avait toutes les euh, qualités pour gérer parce que amoon expérience bi. ku jàng la tamit c'est un enseignant un professeur de mathématique. ku am xam-xam la. gis nañ ne tamit am il a des valeurs. buñ ko joxé euh, commune bi dina ko mëna doxal. voilà motax ñu dem jappalé ko rek en tant que frère en tant que koo xam te amoon nañ yaakaar ci moom. ba lolu maté nak ñu xam suñu jaan wàcc na.

Mm-hmm. référendum la entre deux camps dañ fi jëlé ñi fi nek dem sotle ñi nga xamné parti bi nga xamné ne nañ liñ daj liñ leen téggon dafa metti injustice yi ñu dem sotle leen am peuple sénégalais day sot ñi fal euh, le président Diomaye ce sont pas seulement les militants du PASTEF mm-hmm. c'est tout un peuple ñi and ak ñom ñu bokk ak parti ñu bokk ak parti ñoo leen fal bëggoon rupture voilà motax mëno ci mëno ci évaluer ben parti politique né am base wala amul base mais li yépp bo leen ko xamé lan motax tamit sénégalais yu ëpp mm-hmm. parti bi ñu bëgg a voteel muy coalition bi ñu bëggoon voteel mhm. yéen tamit ngeen xam ne lii référendum la mënoo leen cee génn <laughs> te xam nañ politique stratégique la mhm. ngeen ànd ak ñooñu voilà xam il faut rester fidèle en ces en xam nga boo taxee créer parti politique mooy yow euh, fonction bi gën a ci république bëgg nga ko tenir mhm. muy être président de la république moo tax il faut toujours aller jusqu'au bout de ses objectifs en tant que parti politique euh, élection war naa mën ñëw surtout ñu jall parrainage am ñoo xam parrainage par respect war na ñoo dem élection ngir ñom c'est un parti ba surtout que Yewwi Askan dafa am charte buñ ñu signé woon mhm. mooy bu élection présidentielle parti bu ci nek mën nga dem élection ak sa parti bu né ba deuxième tour nous, ils vont se retrouver pour soutenir parti box ci coalition bi nek au devant mhm. far affaire yam premier tour kon je pense pas que erreur wala na cee mën am mhm. on a une autre parti dem nañ élection affaire demee na ni mu war a on garde notre parti on continue de massifier notre parti te am nañ yaakaar ne échéances yi di ñëw mhm. parti PRP dina ci wane boppam bu baax base politique ba nga xam ne am ko Sénégal PRP mhm. euh, bu Kër Massar mhm. dañ fi gisul base am kat waaw man mi rek base PRP la non yow rek parce que man man rek la ñuy gis keneen na kan moo fi <laughs> nekk pourtant les coordonnateurs sont là le coordinateur départemental le coordinateur départemental c'est Momodou Mamadou Momodou Mamadou Sène coordinateur départemental. waaw bon boo demee Jaxaay da nga fekk Ablaye Ba. waaw hmm. Ablaye Ba moom moo am ngeen fi représentant waaw Kalidou Ba. moy Kalidou Ba ci adjoint au maire là waaw il est adjoint au maire même. mais hmm. xam nga fa la contraction am nekk ji nga boo xoolee. au niveau de l'administration locale. Hmm. il Askan moom moo fi nekk di gouverner jusqu'à présent. on gouverne avec le pouvoir. boo mais à l'Assemblée nationale aussi on gouverne avec le pouvoir pour les rek logique bi Yewwi Askan bi nekkoon ci la nekk jusqu' présent. voilà en tout cas le PRP est bien présent ici à Kër Massar. Mhm. Euh, te élection yi di néew dinañu wane suñu bopp bu baax a mais dañ doon gis ngeen def benn activité Hein? waaw ñu ngi def ay activité yaa ngi may gis. waaye non yow la man dama jàppoon ni PRP yow rek ya fi nek. non il y a des coordinateurs c'est que xam nga bon. oui la seule différence moy man j'ai un mouvement. Hmm. Té may yëngu ci mouvement bi dafa bëri. Mhm. mouvement dafa am ben kiiwam ligne am am feuille de route am. Mhm. am ses activités citoyennes ni mi def. man mako piloter. piloté. moo tax may gën a ci département bi. ci nawet lañ nekk mouvement yu bëree bëri. ci nawet bi la ñuy dóor ah. ndax yow ñooñu ci nga bokk voilà xam nga xam nga bon ñun sax ñëpp xam nañu ci ci ci ci ci nawet. Uh-huh. parce que ci biir euh, mouvement bi. dañoo créé benn comité de veille des des inondations. Uh-huh. ñu ko créé depuis 2019. oui man boo xoolee li tax ma gën a créé mouvement bi sax. Uh-huh. nawet bi moo tax. parce que man fi ma dëkk. koñ bi ma dëkk muy Kër Bakka dafa dafa bokk na ci gën a sonn ci wàllu inondation actuellement nii nii rek. ñu ngi ci ndox mi chaque navette ñu ngi ci ndox mi. Mhm. moo taxoon mu gën a fippu daal man daal damay damay dugg poli damay créer mouvement. pour ñu mën taxaw suñu gox. Mhm. loolu lañ commencé na di taxaw gox bi ba affaire yi yaatu. nawet bi nak chaque ah, ki chaque nawet bu ñëwé ñun dañuy ut suñu matériel suñu pompe. Mhm. ut suñu tuyau et tout suñu maigre moyen taxaw askan wi. même école bi tijjee aussi école yi ñu wër yëpp ñun ñoy dem génne ndox mi fa nekk. génne ndox pour permettre leen ñu mën a tijji. le mouvement cadre est très actif ci inondation té te nekku ci inondation yi kese parce qu'on on est très structuré. Mhm. Un mouvement est structuré comme un parti. Oui. La jeunesse, a une structure. Mhm. Les femmes, ont une structure. Les sages, les enseignants, les enseignants, ont une activité. C'est collègues. Oui. Parce que les seigneurs Seigneur Diallo, Boubacar Diallo. Oui, Seigneur, oui. Voilà, mon mot dit. Euh, Matouré Ndiaye. Matouré Ndiaye, oui. Voilà, mm -hmm. Seigneur Diallo, mon mot dit qui structure enseignant mouvement 4D. Mm -hmm. Chaque euh, année, e-, élection qui est

mais mais euh, je pense que bon c'est surtout Kër c'est Sud nga xam fa laa uh-huh. ñu jeunesse uh-huh. même dans l'ancienne municipalité. Uh-huh. suñu contrat ci la bokkoon. ñu élèves yu nga xam diplôme. bourse on ils ont profité profit nañ bon école privée bourse partenaires. nous am ay partenaires. actuellement on est en partenariat avec IAFPM kabu médecin kabu mhm, médecin kabu suñu élèves yu bëri ñu ngi foofu mhm. ñu nekk en partenariat aussi avec l'ABIS mhm. l'ABIS waa l'ABIS waaw ñoom suñu kii yu bëri def nañ formation ba euh, récemment voilà nous connaissons tamit di chercher d'autres partenaires ak euh, école yu pour permettre à nos kii de d'en bénéficier Oui. est-ce que cette relation ak municipalité bi yomb parce que ku xam politique surtout ñoo bokkut ak euh, parti léeg-léeg pour nga mën euh, euh, def say réalisation mhm. da fay xawa jafé voilà wa lég lég li maire am cër am yenen acteurs yo xamné bëgg na ñëw dolel ko ci da ngay gis lég lég yenn maire yi mhm. municipalité bi duñ la ubil buntu yoy tamit est-ce que yéen ngi dund loolu fofu Kër massa voilà pour la euh, pour la nouvelle municipalité mom mhm. amuñu benn relation waaw avec l'ancien avec l'ancienne municipalité mom on avait beaucoup de relations parce que bon on a travaillé ensemble. mais avec la nouvelle municipalité. Mhm. D'ailleurs, Mang maa je ne pense pas que ñu xamante ça à à distance. la ñuy la ñuy gisante mooy dégg mhm. mais amuñu yenn relation yi. mais en tant que nga yor mouvement. Mhm. est-ce que mus nga saako ci mom audience ngén tok waxtan parce que comme yéen ñep mom même bu dee. dafa am coalition bu ko yob mon tamit premier magistrat de la commune Kër Massar Sud. yow tamit. la la mooy pour développement commune bi. est-ce que sàkku nga audience ngeen mën a waxtaan proposition bi nga xaw xamante ni am nga ko nga mën ko tegal ci table ba ëllëg buy def bilan mu nekk loo xamante ni Kër Massar Sud yëpp dinañ jàpp ni doomu Kër ma Massar Sud yëpp ñoom ñoo am résultat bi. voilà bon amaguñu audience. Mhm. mosu ñoo toog. maa ngi moom waxtaan. peut-être que le moment opportun mhm. nous toog te dinañ waxtaane lu bëri mhm. ndax am na yoo c'est au-delà de la politique mhm. mooy commune bi nga xam ne bokk nañ ko te maa moom ñoo ci bokk objectif muy defar commune bi moo ko tax je jóg ma commune bi moo ñu tax a jóg le moment venu dinañ toog te on pourra réaliser beaucoup de choses ensemble mais liñ la dégg nga wax lu ëpp ci say wax euh, côté éducation côté l'eau, inondation mhm. mais famille donc ni amna une structure mhm. financement voilà mouvement 4D mon mhm. koy def voilà tu as posé une très bonne question oui parce que suñ force yëpp ci femmes la famille. voilà li joxé ci ay ay financement bañ togé ba légui je pense li réaliser ci famille réaliser réalisé wuñ ko ci ben ben structure parce que famille, bañ jëké tok rek dama lancé la calabasse 4D 4D ma yëkkati ben somme jox leen tégal leen ko sen leket ne leen bu leen ko séddoo da ngeen koy jël ngeen def ko seen kees xool noonu ci liggéey wala noonu koy reproduire. andi mhm. leen ay formation aussi ñoo former leen produit yooyu ñu koy jaayante seen biir andi nag des partenaires yoo xam ne ñu daf leen dañ leen di financer surtout euh, waa plateforme jigéen jog jog na bu mhm. Aïda Mbengue mhm. jox nañu 150 femmes yoo xam ne financé nañ leen récemment. avant nawet bi rek 150 femmes. à hauteur de 50 000 francs par femme. 50 000 la ñuy démarrer. boo fayee

seen naataango bi euh, di monsieur le maire. Mhm. comme yéen a ngeeg femmes yi ndax femmes yi am nañ GIE. Mhm. lancé na yàggul. Mhm. partenariat bi ma am ak DER. ak APIX. est que ci seen récépissé yi nga xamante jigéen ñi am nañ ko mu nekk loo xamante pour commune la est-ce que yéen pare ngeen pour dem tamit déposer pour seen femmes yi mën cee bénéficier wu voilà léegi fu toogee nii la ma président des femmes bu mu de envoyé ma ko mhm. affiche bi mhm. muy Asoufal Badianu Gox moom moo nekk président des Badianu Gox Kër Massar Sud mhm. moom mooy présidente des femmes bu mouvement 4D léegi la ma envoyé affiche bi parce que moom lu xew rek Je dem dama naan représenter le mouvement bi ak ku munti woote ku munti mhm. day dem mouvement bi lépp la nga xam ne mën na ko pour gérer, mhm. femmes pour da ko mhm. elle est très active à la municipalité monsieur le maire lu mu woote day dem représenter le mouvement parce que le mouvement aussi ce n'est pas seulement moi bon on n'a pas besoin de me voir tout le temps ku ci am structure le maire bu la jeunesse le président des jeunes Alpha Alpha Laye dafay dem ànd ak son staff. mais ñun moom Makadé yow rek la ñuy dégg yow rek la ñuy gis. pourtant nag bëri na bëri na ah, bu ah. Makadé yaatu na yaatu na trop. ñu bëri sax booy ñu ngi génn. Ah. xanaa doo suivre <laughs> suñu actualité bu Makadé yaatu na dèjà rek sànq yaa ngi ma tuddal ay Maturé Ndiaye yaa ngi ma tuddal les enseignants xam nga leen bu baax. <laughs> yaa ngi ma tuddal sas imam Fallou Diop nga xam ne bokk na ci imam yu uh-huh. jiite kii bi département bi uh-huh. moom mooy le président du comité scientifique uh-huh. bu mouvement a Uh, man nag xam naa bayre moo xaw a bëri. bayre bayre moo gën <laughs> ah, bayre bee gën saf daal. comme ko fan ngeen ni jëlee seen source khalis fan la. voilà parce que ni nga tuddee financement yi. du mhm. financement yi ndaw. Mhm. financé dix personnes sax. Mhm. somu xaalis la. surtout som yi nga xamante ni moom ngay tudd. voilà fan la fan la source bi di jógee. voilà xam nga am na man maa ko tàmmal dèjà. dama tàmmal ñun ñuy làmb suñu poste di premier acte bi ma def. ba may njëkk a jënd premier moto pompe bi may njëkk a jënd mhm. dama toog koñ bi ndox mi fees dell ñu ne waa nañu woo moom waa ji ko na mouvement nañ ko woo mhm. gars yi ma ñëw taxaw ñu ne saa yi def fexeel ñu dem ci monsieur le ma ne bala mhm. ñoo def dem ci monsieur le maire dañu xool ñun lu ñu mën d'abord ma lu ma yëkkati génne sama poche teg teg ku nekk laamu sa poche ku nekk laamu sa poche man dem leen jënd moto pompe ñu dem jënd moto pompe indi ma dem jënd laakool indi

c'est des partenariats xam nga nanodeer mhm. ñoom bon soxlawul ñu ñu jox dugal suñu xaalis. oui ñoom ñooy génne jox leen parce que ñoom ñooy génne. Mhm. dañuy ñëw tijji la sa compte buñ ko tijjee ba pare foofu lañ lay virer sa xaalis. Mhm. boo liggéey ba pare fay ko ci ci compte bi. ci compte bi kon boobu san ça demande pas des moyens. dañuy jox femmes yi xaalis suñ leen lee compte ba pare après femmes yi doog jël commencé fay. voilà buñ la buñ ñëwee tijji la compte bi tey. une semaine plus tard xaalis dina ñëw. léegi Euh, ci numéro whatsapp kii bi wave bi. wave bi léegi nag yow foofu ngay toog di fay. mun ngay fay nag chaque jour ba neexee boo jaayee téeméer nga dugal. Mhm. en tout cas spatial nañ la ko 3 mois. 3 mois léegi boo fayee ba mu jeex. ñoom ñu envoyé la. jarul sax ngay gisante ñoom. ngay gisante ñoom waaw si noonu la liggéeyee ak ñoom. ñu si gis seen bopp baax baax. Mhm. xam gars yi dafa am lu wax dañ ne avec les moyens on organise. oui sans moyens on s'organise. n'a mhm. pas de moyens. boo xam ne ay borom xam-xam lañ. ñu ngi ci modèle économique kon mun nañ séentu ni ëllëg mhm. da ngeen mën a amal seen bopp mhm. te kenn mënu cee def dara mooy ni ngeen commencé jëli euh, am na ñoo leen jot a liggéeyal mais seen finalité mooy ngeen am seen modèle économique président lancé na ko bërki démb parce que nit tant mhm. yaa ngi jéggaani. Mhm. mooy pour nga mën a am sa modèle économique dafay xaw a jafe. voilà loolu dafay dafay commencer ci ñoom ñi nga xam ne ñoo ñoo réew mi. Mhm. ñi ngi wax ci endettement. Mhm. le pays est très endetté. oui mais endettement mu ñu si dund. il faut ñoom travail de telle sorte que nous avons une autosuffisance. Mhm. le développement d'un pays ça doit marcher sur deux pieds. oui l'agriculture. et mhm. l'industrialisation. Mhm. Euh, je vois que le ministre de l'agriculture en tout cas il est très actif je pense que euh, euh, ça va ça va aboutir à quelque chose. parce que l'agriculture, c'est une base ba nga xam dinañ mën a créer des industries industrialiser ce pays ba nga xam dinañ am suñu autonomie mhm. bopp mhm. ba nga xam dootu ñu jéggaani fenn di uti xaalis pour mën a euh, yor suñu réew mhm. voilà euh, ñu may signaler ne li ñu amoon ci heure jeex na ah. dañu gis ni politiciens yi <laughs> politique bi moom kañ la fiy jóge mooy xastante parce que dañuy mel ni ñun ñu ngi deux mille vingt et ba léegi. voilà mooy saagante bi xastante bi. génnee vidéo génnee photo wax lu ñaaw. te fi ñu toll rupture bi ñu bëgg. Mhm. mooy faire ñëpp àndandoo ci nekk génne sa xalaat parce que bu politique association d'idée la. Mhm. war nañ mëna a nekkante ay nawlé façon politique bobu lan motax mënu fé jóge ba légui wa lol parti politique yi ñoom ñoo ko œuvrer mu dem. Mhm. parce que fa am loo xam dañu ko abandonné muy l'école du parti. oui fi da nga gis un militant d'un parti muy école du parti. mais musul jaar école du parti. xamul sax lan moy idéologie. parti bi. oui motax ñun certes on a un mouvement mais mouvement bi dañ ci dugal benn kii boo xam ne école du parti lañ ko tuddee. Mhm. dañuy woo génie par chaque fin de mois di leen woo ñuy def ay ñuy travailler ensemble def ay té débat mhm. pour mu leen orienter dañoo tëgg benn kii boo xam concept boo xam ñu ko tuddee la politique autrement. Mhm. une politique boo xam ne ça renvoie la politique à sa vraie ah définition. muy l'art de gérer la cité. avec des valeurs avec nos valeurs socioculturelles ñu def tam benn kii boo xam ne règlement intérieur ñu ko tuddee les 10 commandements. 10 commandements boobu dañ ci tere xaste dañ ci téré saga dañ ci téré la violence sous toutes ses formes. parce que dañ né ñun pour nous defar réew mi il faut que ça soit basé sur l'éducation, mhm. il faut que ça soit basé sur la discipline. Mhm. bo demee ci les pays asiatiques. amuñu on dara ñun ak ñom ñoo jëloon doo départ. Mhm. parce qu'on a été des pays colonisés. mais tay jii ñoom raw nañu té bo xolé ci lan lañu rawé ci éducation. ci discipline ci lañu rawee pays avancé yëpp ci discipline la ah, ñu rawee. moo tax Sénégal sax amna na discipline buñ ko musoon éliminer est-ce que du coupe du monde. problème discipline la. parce que bu ñu xoolee ci carton yi 2018 waay. voilà moo tax kon discipline dafa am solo. non discipline dafa am solo. mais nak lool parti politique dañ ci wara jouer rôle bu am solo. Mhm. ñuy jël seen euh, militants. di leen mhm. yob séminaire di leen def formation. ñuy ñu jaar école du parti ñu xamal idéologie yaraat leen xamné politique. idée la. Mhm. mais di muy dem l'art de gérer la cité foog ngeen teg ko ci table. génnee xalaat wooyi noonu. Mhm. ba ñu war a xam rapport bi war a am entre pouvoir et opposition. dégg mhm. nga le rapport entre pouvoir et opposition ça ne pas être un mortal combat. xam nga la war a doon. doon ay noon quoi d'idée rek la pour l'intérêt du peuple. xam nga am na loo xam ne même booy attaqué sax nga attaqué ci orientation politique. ci orientation gis nga man góor boo may déglu.

mais nag pour le bien yow xam nga sa vision. voilà pour le bien du peuple. Mhm. dañuy proposer ay solutions. ci ñi nga xam ne mhm. ñoom yor man je préfère toujours donner des solutions bu xeex ak xuloo duggee nag ma daal di. mais ñi yor responsabilité tamit war nañ mëna yor wàcc wàcc go, xamanteni ñi leen proposer ay solutions. ak idée ñu déglu leen. voilà motax mhm. n'importe qui ne doit pas faire la politique. oui politique surtout le leadership boo incarner incarné. da nga wara am valeur yo wara am. parce que tamit chaque groupe est chaque groupe est à l'image de son leader. ndax ñi top sa ginaaw dañ lay roy man samay boy dañ la sax yeen da ngeen vous êtes mou comme votre leader Vous <laughs> du xex du xuloo bu Vous commencé mu rasu dem ne mais non non Vous war formaté wat Vous yi vous len yar len teggin yar Vous ci xam-xam ban len yar ci médiocrité ban len yar ci folklore loolu lañ mën a développer Sénégal. kon daal foog ñu sóoraale relève bi. te solution bi gën mooy école du parti. école du parti mu ngoog. pour relève bi jeunesse bi bu ñuy bëgg a nàmp sax. ñu xam ni am na benn doctrine. Mhm. politique ak idéologie politique boo xamante ni. yaa di doctrine. mu ngoog doctrine. <laughs> damay kii yenn saa damay xaw a kii waa Pastef ma leen. <laughs> patriote ko mu ngi mi ngi njàngal naan patriote la mais patriote warul nekk slogan ça doit être un comportement da ko war di ko jëfee mu war nga war a am esprit citoyen de civisme aussi. Uh-huh. ñu koy kii bu baax a baax. mais nekkul un slogan boo xam ne wala loo xam ne da koy takk genre yooyu noonu. <laughs> amoon nañ mbégte fii moom mooy cercle des idées. neex na euh, waxtaan ak yow. neex na trop génne ay idées yoo xam ne mën na jariñ ñu réew mi. ban message nga bëgg a lancer mouvement Kandé xam naa du bëri ndax <laughs> wax nga fi lu bëree bëri. mouvement Kandé euh. ban message nga bëggoon lancer. ñoom ñi nga xamante ni bokkoon nañu ñu ak yow ak jotaay bi. di la seetaan Nous liñ tambalé ñu ci rek. Mhm. askan la politique c'est le don de soi. Mhm. Nous avons la citoyenneté moom moñ ñu euh, ci dem. Mhm. à chaque fois ñu ngi suñu di askan wi. nañ sax ci euh, société bi ci lañ société nañ suñu nañ ci le message aussi bu may lancé le président il a été toujours constant. bu mu commencé politique ba légui té constance Sénégal il a toujours été aux côtés du peuple motax ñun say militants on est fier de lui te ñu kon ñu koy féddale suñu kóolale mhm. te wax né les prochaines échéances inshallah le parti sera prêt mhm. waaw pour wane bopom ci Sénégal incha allah Kër Massar ak leader yi fi nek mhm. léeg-léeg nga dégg joy ci département bi manqué accompagnement di lire bu bees lan la xaar ñu doli ko fi voilà bon xam nga ñom lay bi mo nekkoon dañu nekkoon ay maire opposant oui waaw léegi nag comme ñoom ñoo yor nguur gi. nguur gi way voilà <laughs> amul lay amatul. way léegi nag nañ leen accompagner. waaw yor nguur gouvernement bi. dañ accompagner ci projet yi. Mhm. ñu mën a réaliser projet bi. ndax ba mën a séentu Kër Massar mu doon ville ah. waaw une ville Kër Massar mhm. dafa sonn. way dafa sonn trop boo xoolee Kër Massar sud suñ suñu mhm. yi. waaw waaw c'est des quartiers pittoresques. les gens souffrent. moo tax nag laaj na accompagnement ba projet bi mën a dugg. way canalisation bi daj fépp. éclairage public am. dem fépp voilà mu nekk une boo xam ne duñ duñ naw kenn daal. duñ naw kenn voilà voilà kon jërëjëf. jërëjëf góor kontaan naa bu baax Moustapha Mbengue Junior. amoon nañ bégte. kontaan léeg nag ñun suñu liggéey. Mhm. foog ñu dugal audimat bi. Mhm. xaw la sërëxal sonal la. <laughs> mais nga xam ne ci métier bi la bokk. am na solo neex na trop. bokk ci jeunes yi nga xamante ni. Mhm. nañ leen trop. seen taxawaay fii si département. bu Kër Massar. di ñaan yàlla nag xëy na comme. da ngay da ngay côté say mbir lu bëree bëri. moo tax bëgguñu woon sori. <laughs> ci ndax candidat nga élection yi ñu jëm. <laughs> mais comme nee nga yegg seegul dañ lay bàyyi dañ la <laughs> ah on est très ambitieux kon ñu ñu ñu xaar pour nga nekk candidat élection prési ki euh, yi nga xamante ni moom la ñu jëm on est suñu juumul ñett euh, mën nañ wax ni ñetti at rek moo ci des mu ngoog waaw te am na élection yu war ñëw avant war a ñëw dinañ ci gisaat sa taxawaay on sera prêt incha allah mu ngoog kon baax na kon Moustapha Mbengue Junior dégg ngeen <laughs> candidat déclaré kon monsieur le maire Bilal jaat am na problème Kër Massar Sud am na gan bu bees candidat Moustapha Mbeng Junior nee na pare nañ pour lépp d'ailleurs taxawaay bi danañ ko def ci élection yi nga xamante ni moom la ñu jëm avec parti PRP kon parewul pour pour trahir président de Fall kon mi ngi taxaw ci constant bi président Déthié Fall am fii ci Sénégal rawatina ci département bi nga xamante ni département bu Kër Massar la comme niñ ñu leen ko waxee sànq rek euh, mi ngi évaluer foofu ca Kër Massar Sud rawatina Kër Baka mu yor fa mouvement bu am am solo te taxawaayu mouvement boobu sax moo tax PRP teg ko fi nga xamante ni lañ ko teg ci social bi ak li nga xamante ni mooy développement rawatina sax ci wàllu euh, enseignement lam dugal loolu moom foog naa képp kuy yeewoo Massar Sud xam nga ko parce que tamit c'est pas facile ndaw bu toll nii nga gis ay mak yu bijjaa weex doyloo woon leadership sibam kon kooku am na loo xamante ni nekk na ci ginnaawam kon lii la ñu indi woon tey cercle des idées ak Moustapha Mbengue Junior ñu doon waxtaan ak moom ci actualité réew mi ak aussi tamit actualité bi nga xamante ni am na fii euh, ci Kër Massar kon maa ngi gërëm daam mi nga xamante ni moo def coordination bi yëpp ak lil salaam mi nga xamante ni moo nekkoon ci technique bi ak Amir ak aussi tamit nuyu awa bu baax a baax nuyu nga xamante ni moom mooy Carla ak groupe IM ñoom màgget IM international média TV kon beneen numéro ak beneen invité merci monsieur le maire kay jërëjëf merci beaucoup